maa fi nekkal ñépp xam ngeen ni màggal gi leer la leen ni Touba mooy capital hmm? ku fi gis mbooloo mu toll mii war a xam ni Serigne Touba ngi fépp am hmm? tuuba màggalu Touba takkusaani màggalu Touba nga gis fi ay xale yu toll nii ak seeni nijaay ak seeni baay ak seeni bàjjen ak seeni tànt hmm? jërëjëfe Serigne Touba. jërëjëfe Serigne Touba. jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul. moo tax Macky am chance Macky soxna Macky am na chance waaw man personnellement daf ma touché. avec plomb de neuf grains neuf grains ñii ku mel ne xalil sama doom xam na plomb boobu waaw ku nekk ak la lay jàpp premier ministre bi sax a ngi lay nuyu wana ma sànq téléphone am na ñoo xam ne nag peut-être euh, yu mel noonu dañ koy xoomtoo du ma ci xoomat man dama naan dàng man man damay wax mbaa ma noppi damay sant mbaa ma màndu man maa ne Macky am na chance ah li tax ma wax ko nag xam nga fi mu toll damay codé rek nag ku yabu nag waaw dawal sam xel ni fasu naaru góor waaye code dama koy codé bis bu décodé jotee nag wala ku ma mën a décodéel nga décodéel ma Lamine moom mën na maa décodéel parce que xam na naka la wallahi moom mi gërëm naa ko di ko seetal ku tedd ki xam ngeen lu tax livre ndaxam Bamba daj na fépp. day waaj a génn ab Ablaye Wade di ko sant mu feeñal ci générosité bi mu ci feeñal soxna xam na ci dara mais Abdou Diouf itam Lamine fexe ba mu wax ci loo xamante ni bii ci livre bi ba noppi fi mu toll itam Macky jox na ko kàddoom ni ko moom it moo koy tëj dina préfacé loolu la Lamine def moo tax sama ñépp laa bëgg ñu jàpp ko bu doon politique a tey Lamine bu doon politique tey bu soobee dina bari militant waaw bu doon sama ñépp kon ay méritam lañuy doon ndax dafa def ci ban lu kenn deful bind naa ba bind tubaab ba lakkoon taat ya waaw wax naa ko Lamine Sall ci téléphone muy ree tubaab ba lakkoon taat ya moo ko def ndax dafay samp jàkkaam wut ñeenti bantam di ko samp tubaab bi ñëw sempi ko ni ko fii jàkk xaju xew fi dem def ko moom ci wanagam ci ab duusam dem jël ndox ba mu daataan egg malaay kiy baxal ndox mi ci diggante bi mu dem sotti ko ci taat yi sànni tubay ja taw sampu xelam ñëw jàkkaarloo ku tedd ki naan cëpp cëpp cëpp cëpp fu ne mu jëm loolu xew na Gabon ñu bari xamuñu ko xew na fa xew na fa bato ba bi mu julee ci géej gi ba noppi bato ba bi mu julee ci géej gi ba ñëwaat ci bato bi commandant bi daf ni ko man sama yaay dafa dee mais leer na ma ne am nga pouvoir indi ko ma gis ko def naa ci poème mu indil ko ko mu ne ko damaa bëgg mu bañ a teddalu mu ne ko déet loolu na mënut a nekk ndax fa ma ko jële <laughs> faaw day dellu jëf yàlla la dama bëgg rek nga xam ni tëlewu ma dara moo tax ma indil la ko yooyu ñi ko xam bariwul du kenn te kenn du moom du kenn kenn du moom loo ko booleel mu bàyyi laag la waa mi ngi mel ni daal xam nga ku nekk ak ni ngay noose man sama lunette yii noos la ci man dàll yi noonu micro micro yii ma téye noonu li may wax noonu damay noos Cees nag ba may xam dëgg dëgg dëgg Cees baroon na ay xale yoo xamante ni bii deux doigts mooy seen métier. ñaari baaraam ci poos yu jàmbur bu mu fi xew xañ na sax loolu lu xewi la waaye dama leen di fàttali rek ni xamoon naa Cees bu baax bu mu fi xew te bu mu fi xew te bu mu fi xew kun fa yakunu bi bam sashin kun fa yakunu bi bam sashin kun fayakunu bi bamsashin kun fayakunu bi bamsashin kun kun fayakunu bi bamsashin kun كن فيكون ببمسة أنا أمامه أما ببمسة بمحمد أم ببمسة أم أم ببمسة بمو في أم ببمسة bu neen am bébam sosunna faw mu am bébam sosunna waaye bu nee du am bébam sosunna kon loola du mën a am bébam sosunna jërëjëf Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba Bamba jarna danga dangi oh Bamba jarna danga dangi Bamba jarna danga dangi oh Bamba jarna danga dangi oh Bamba jar na dang dangi Bamba jar na dang dangi oh Bamba jar na dang dangi xajaleen ma kumba oh Bamba jar na dang dangi xajaleen ko dangi Bamba jar na dang dangi ah mm. Bamba jar na dang dangi oh Bamba janna danga dangi Mande mm, mm, janna nanga nangi Bamba ah, mm, janna danga dangi Oh ah, Mande janna danga dangi Bamba ah, janna danga dangi Bamba janna danga dangi Bamba janna danga dangi waaw ah waaw déet ma ni ma ñëw neex na walla neexul mane neex na wala neexul <laughs> tabaarakallaahu waaw ci noos gi la ci noos gi la lépp ci noos gi la